asalaamaaleykum la ñu bëgg mooy feesal ndakaaru bam rembat génnee sénégalais tey ci àjjuma ji doxub ñaxtu ba ñuy xamal ñoo waañ ñoo lànk ñoo bañ laa si ne kaay ñu ko xamal la ñuy sàkk mooy courant bu cher bi ñu yokk ñu wàññi ko Guy Marius Sagna ba ñu tëj ca kaso ga ñu génnee ko yéene kaay bi na seen doxub ñaxtu bi nag tey am nañu autorisation maanaam préfet bu ndakaaru nangu na ko les échos yéene kaay na lañ bëgg nag génnee mboola mu mësta am waaye est-ce que loolu dana yomb caat bu yaanaa na leen waaw ndax li xeexu sénégalais yépp nañ génn Guy Marius Sagna nañ ko génne ca kaso ga balaa làmbaay ñaaw Fadel Baro ne sénégalais bu mënta génn na takk ay morso yu xonq yor sa soufflet bu trois heures ci bëccëg jotee ngay mbib di yooxu yéen kaay bi nag ne waa ñoo lànk fa ñoo soppi yoon wañ doon xaw ayaw seet tal tey ci àjjuma ji ña ngay déparé université bu ndakaaru jeexalee ji rond point poste Médina critique yéen a kaay na fa ñoo joxante loxo waa ñoo lànk ak étudiant ya ñoo fas yéene boole seen doole amal doxum ñaxtu bi kon yëf yi nar naa bëri mbooloo de yéen a kaay bi nag waaye boo mooy tuut fitna mën naa jóg ndax étudiant ya farak makki benn bokk yaakaar nee na ñoom it dañuy xamal doxub mbégte ngir jàppale makki ñaari mbooloo ya nag buñ dajalooyee xeex mën na faa am de li leer njiiti réew mi Macky Sall ba mu wax ko mooy ne Guy Marius Sagna ba doon amal ñaxtu ca bunt pale ba nee na loolu xel nangut ko de ana ñaxtu ak palais xam ngeen ne loolu du pacifique maanaam jàmm taxut koo jóg ndax loolu fa garaaw waa grand place yi nekk ay ñu ko xamal li mu ñu xamal moom si du quotidien mooy njiiti réew yi nekk Afrique jàngat nañu ni njiiti réew Macky Sall yore réew mi a seetal ña ca gën a bëri ci tënk daal jàpp nañ na li fi bon mu ëpp li fi baax donte Macky ngi góorgóorlu waaye Sénégal yoon ndax moom na boppam Guy Marius Sagna ba doon doxu ñaxtu ñu tëj ko ci kaso gi te Macky li muy xaayee dox doxu ñaxtu moo bari te doxu ñaxtu sañ-sañu askan wi la tolluwaay xale taaliba yeeg ci gàttal daal yeneen njiiti réewu Afrique yi ñaawlu nañu ni Macky yore réew mi direct news na ko du réewu Afrique rek de même réewu France ñaawlu na ni Macky yore réew mi ndax ñoom li leen métti te naqari leen déranger leen mooy marché yi nga xam ne Macky jël na ko jox ko réewum Turquie moo tax fi mu toll nii liggéeyu teer ba teer na taxaw na ba tax jëwriñ ji di Amadou Ba daw na dem a kaay di ñu na batob nigérian ba kilifa ya wax ñoom ànduñ ci de aayaw neneen dorog bañ jàpp ca seen bato ba ñoom ci seen bopp seen i liggéeykat ñoo ko gis wax ko seen avocat yi avocat au douane bu Sénégal ñu ñëw jël dorog bi waaye bu ñu wax naan ñoom ñoo enquête ak ñoo def nii ñoo def naa ah loolu da waxu caaxaan-caaxaan am dëgg nag mooy autoroute à péage bi réewum Sénégal nguur gi amuñu ci benn dërëm secteur privé bi seen vingt cinq pour cent doon wax kenn jotul benn dërëm xaalis bi yëpp gaa ñi ñoo koy xenu di ko yóbbu seen réew yi ba tax réew a kaay ne patronat bi sàkku na ci mu toog ak ñi defar autoroute bi ñu waxtaanaat ci beneen contrat waaye contrat bii moom baaxul xaalis bu ñëw après ñoom ñu jël ay milliards faneen fu ñu dégg milliards yu am labaj tappale mbuxum mooy ca université Amadou Makhtar Mbow libération moo ñu xamal ne ARMP ñoo génne am rapport waaye jalgati rek fa am de fa jalgati wala jalgatiwut moom maître Moussa Diop waaye lu ma a xew daal l'évidence yéen a kaay nee na suspendre nañ ko de kajji football ca biti sori na makki turbine yéen a kaay ne cour des comptes moom it war naa def ay compte wax ak sénégalais yi ndax ay rapport am fa ko yéex a ñu génnee juróom benn téeméeri million ci dollar mooy américain yi dimbalee ko Sénégal ci wàllu courant MCC lañ koy tuddee Dakar Times moo ñu ko xamal njiitëram Macky Sall ci la solo yéen kaay mel ni ku naan kontaan nañ ci américains yi waaye ñun tamit danañ kontaan ci ñun ndax fa ñoo bëgg ñu bokk ci téeméeri réew yi gën a góorgóorlu ci koppar yoo ñu leen di dimbalee dig nit nag ndimbal te defoo ko tas yaakaar la ay diiwaan yoo xam ne ay pëla fa dëkk fu mel ni cellu woore fonde ak añaam mere nañu lool Cheikh Kanté Farba Ngom ak Yaaya Abdel Kane exclusif yéen a kaay ne ñoom ñett lu ñaaw lu am xiiroog ngaayoo ku nekk na maay jiitu vox populi ne Macky 2012 Sall ci boppam moo leen rey bañ dee ndax fale na ñàkkal fayda nay leeral laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Amath Dansokho réewum France delloo nañ ko njukkal parti communiste ya nee neen Dansokho roy waay la woon ci ñoom am nañu ko seedal ñemeeg dëggam wadd sax su defee lu warta def Dansokho na ko ànduma ak yow waa grand place yéen e kaay duñu xamal na njiital APS Thierno Birahim kaay na ko conseil d'administration ba ak jëwrin bi yëpp ña ngay jàmmaarloo ak moom waaye waa ji ku dëgër bopp la faalawut leen sax yaay Fatou Niass nee na fay porte plainte Ousmane Sonko ndax seen turu parti bi moom moo ko moom Sonko fa ko sàcc ba tey yéen a kaa bi di ñu xamal ne fika bu Kaolack foire ba njiit la Serigne Buub nee na fanweer ak ñaari junne ay apprenti danañ leen tegal programme ci wàllu formation professionnelle ak wàllu artisanat loolu mooy jox ndaw yi wallu xëy emploi l'observateur moom di ñu xamal ne sénégalais yu bari bu ñu xàngee duñu reer de xiif leen di bëgg ay wax la rek ay slogan waaye sénégalais yi ñoom sonn nañ de ba tey bi na leneen lu sonal sénégalais yi ray gu yu bari bakkan yu ñuy faat xapp ak lakk la fi mu toll ni ci réew mi bët bu set presque nga dégg ku ñu rey yéene kaay bi kontu na ci lim na yu baree bari liñ seetlu nag mooy yu bëri ci ñuñ rey dëgg la police yi xam na ñu def enquête ba jàpp ña ko def waaye li ci gën a bëri ña ko def kenn jàppul leen li ko waral nag mooy police ci enquête yi tamit nee nañ askan bi tamit fañ leen a desee jàppale ndax du weer diw ndax may bañ nangam ëllëg xam noppi loolu baaxut waa ma ne li wér daal te xam waaye ki nga xam ne kenn mënu koo rëcc mooy yàlla te mi sa kanam di la xaar